moo muy wax yi nga xamee ne mën nga koy feccalee sa jamonoy féex ndax nga dolli ku tiyaaba da cee boole woon xalaat mu ne xalaat day moom bokk na ci mbir yi ëpp solo ci nga di ko def ndax nga jëriñu fii ak fële sa waxtu itam fees dell ak njëriñ alxasaal yi wax na ca ihyaaw xuloomi diine ne diine day bari na ay meññeet yu ca jullit bi mën a watte fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira waaye nag meññeet yooye moom yaar yi ñoo ca féete kaw benn ba mooy xam yàlla ba ca des mooy wétli ko yàlla mu yàlla rek mujj di sa wéttal mais nag yooyu yaar lu ci nekk am na lu koy maye wétli ko gi yàlla moom mujj yàlla rek di sa wéttal moom saxu koo tudd moo koy maye xam gi yàlla itam moom xalaat rek moo koy maye nga xam ne kon wétli ko yàlla ak xam yàlla mooy yaari meññet yi gën a kawe yi nga xamee ne ab jaam mën na koo amee ci sàmm diineem fii ci àdduna mu ne nee nañu wenn waxtu woo toog di ko xalaat ci sa digganteeg sa boroom lay tax nga mëneeg moom ak la waytee mëneeg moom ak màggam ngeen yu demee noonu nga toog wenn waxtu rek di xalaat ci lu mel noonu mu ëpp solo ci yow nga doon jaamu yàlla atum lëm moo xam ne cër yi rek ñooy yëngatu waaye xalaat bokku ca jaamu yàlla at goo xam ne amul xalaat xalaat wenn waxtu rek moo ko ëpp solo ci jaam bi moo ko ëpp njariñ ci moom ne manees na ne ku gëm yàlla moom toog di xalaat day mel ne ab seetu boo xam ne dafa taxaw ci kanamam di xool ndax xalaat gi ci lay xàmmee yu baax yi mu cay bët lam ca defoon mu di ko xeeb di jéem mu yokku ba tey xalaat yi moo koy wan yu bon yi mu di ko gën a xàmmiku lam ca weesu mu di ko jéggalu tey moytu mu dal ko ci la ca kanamam kon xalaat ci ku gëm yàlla daa mel ne seetu bu mu taxaw di xool rek mu di ko wan yu baax yi ak safaan yi muy gën a góorgóorlu ci lu baax tey jéem a góorgóorlu ci sori safaan yi muy yu bon yi koo gis rek mu yeewu di sàkkub cër bu kawe kawe ci yàlla foo ko fekk rek xalaat ni moom biram lay doon du tàggoog moom mukk mukk xalaat bu ne nag day jëmale boroom rek fa xalaat ba jëm bu dee ko amub cër ci xam boroomam di xalaat nag ci mbirum boroomam da ciy amee ak àgg ci boroomam ak gën a jege boroomam ñi nga xam ne ñoo dëddu àdduna bu ñu dee xalaat àdduna ni nga xam ne moom lay jeexe ak àdduna nim ñàkkee wëlëre nga xam ne koo fonk day mel ni moom dalay wan gannaaw bu ñu dee xalaat nag àdduna ni muy jeexe ak nim ñàkkee wëlëre moom àdduna day tax ñu gën a sawar ci lañu nekk te moo di wan gannaaw àdduna gën a sax ci dëgmal ngërëmul seen boroom ñi nga xam ne ñooy farlu ci jaamu yàlla bu ñu dee xalaat tuyaa ba juree ji nga xam ne bu ëllëgee moom la yàlla fayee ña doon jaamu ak ngëneelam lu rëy la moom yàlla xalaat ba day tax ñu gën a xemem tuyaaba joojee gën a xemem lépp lu leen ci àggale ba tey nee na ku am ab cër ci xam yàlla boroomam bu dee xalaat ci li yàlla yi day tax rekk mu gën a sopp yàlla boroomam ndax ki amub cër ci xam yàlla boroomam leen lu nekk da cee dolli ko ak waaru bu dee xalaat nag xéewali yàlla yi xéewal jaam ñi dañu wute lool te bari lool day tax mu gën a sopp yàlla boroomam ibnu abi jamrata nee na kilifa diine gu mag a mag la mu ñaan yàlla dolli ko gërëm kilifa googu wax na ne xalaat moo gën jëf yaram ju àndut ak xalaat ku gëm yàlla bu dee xalaat lam ci amee ci dolli ku gëm ak njariñul biir ak bitti mooy ëpp solo ci moom bu doon jëf rekk ci ay cëram noonu di boolewu ca xalaat boobule ndax nee na xam-xam bu wér a wér bu amul werante xam-xam bu wóor mel ne rek ni mu la wóoree ne wàññi bu ne ci benn lay tàmbalee ak ni mu la wóoree ne ñaar mu ëpp benn xam-xam bu demee noonu nee na ci xalaat rek lañ koy amee waaye jekki-jekki am ko te xalaat jiituwu ko yombut nee na it gëm dëgg-dëgg balaa mat faw rekk xalaat da koo jiitu waaye gëmuk tëddal rekk te xalaat jiituwu ko du mate noona tëb rekk dal dal di gëm fa saasay saasa te xalaat jiituwu ko du yem ak gëm goo xam ne xalaat da koo jiitu gëm nga nga xam ne daa tegu ci kaw xalaat ba xol ba leer kumpaam deñ mooy gën a mat faaw faaw mooy gën a mat gëmub jekki-jekki rek tëb dal ne wax nañu ne jekki di xalaat moo gën jekki def geneen jaamu yàlla goo xam ne àndut ak xalaat ndax ki gëm yàlla bu dee xalaat ak gëm yàllaam day gën a dëgër dëgg fis ci kanamam leer nañ mu jàkkaarloog moom mu daal di am ak seetlu biir ak bitti ak gëmam dëgër këng ci boroomam ak lépp lu ñu war a gëm kem na nga xóotale say xalaat ak na nga koy yàggale noonu la sa kàttanu gëm yàlla di dëgëre ndegam wax na la xalaat ni mu amee njëriñ mu ne la kon da ngay jàppi xalaat muy ab seetu boo xam ne foo toll yaa ngi taxaw jàkkaarloog moom di xool di gis foo toll del wéet di xalaat day mujj rek kon dëgg leer fi sa kanam nga jàkkaarloog moom ndax ne sunu maam ibrahim ab yonante la te ab yonante moom ak xam yàlla ak wóolu boroomam lay indiwaale ci àdduna waaye moom daa fekkan ay nitam nag ñuy jaamu biddiw yi ak yàlla sàkk ci asamaan si yàlla may ko nag ci dolli ko xalaatam mu mën caa jonganteeg ñoom ba xamal leen ne leen yi ngeen di jaamukat duñu yàlla ndax yàlla nekkul luy nëbboo ko feeñ di yokkoo ko wàññiku di yëngatoo ko dal yooyu yëpp melo yu mbindeef rekk la moo tax ci saaru al anaam ba ibrahim bëggee jonganteeg ñoom ci fekk leen ci lañu jàpp wax caag ñoom ba ñu yeewu daa bàyyi ba guddi ga lëndëm mu ne leen ah biddéew bee de moom ne ngeen mooy saa boroom yéen itam mooy seen boroom ah wax ngeen dëgg de waaye noonu la ko waxee ngir rek fekk leen ci lañu wax ba yey leen ca bañ demee nag ba biddiw ba suux mu ne ah man nag day yàlla joo xam ne day feq ka suux moom xaw ma ko kooku de moom yéen a koy def yàlla waaye man day du sama boroom ñu demati ba weer wa feq mu ne ah wax ngeen dëgg nag kii de moom mooy sama boroom ba weer wa suuxee mu ne ah laa waxan ca biddiw ba day ñëw na ci weer wi yàlla ji suuxa ka feq de moom ku xamul rekk moo koy def yàlla ne ah man day kii yàlla dëgg-dëgg yàlla na ma gindi ba xam ko jaamu ko moom dong te bañ a jaamu leneen lu bokkut ak moom su ma gindiwul rekk day danaa sànku ne ni ñeneen ñi sànkoo ñu demati ba jant bi fenk te xam nga ne moom moo gën a leer mu ne ah wax ngeen dëgg kii nag de moom ca dëgg-dëgg moom wax ngeen dëgg mooy sunu boroom maa ngi yéen ndax kii moom moo gën a rëy biddiw ak weer ak yeneen te moo leen gën a leer naka jant bi sonn ak mu ne ah laa waxan ci yee day ñëw na ci jant bi yàlla ji fenk ka sode moom xaw ma ko ne leen wóor ni man daal yi ngeen wax yépp ne ñooy yàlla duma ci jàppee kenn kenn kenn yàlla maa ngi dëgmal ki nga xam ne moo sàkk yii moo sàkk leneen te moom rekk mooyoo ko ko jaamu fës bu ko yéenee booleeg dara dara mbaa kenn kenn mbaa lenn lenn alxuraan moom la nett li ci falamma janna alayhi leylu ra'a kawkaban qaala haza rabbi falamma afala qaala laa uhibbul aafiliin falamma ra'a alqamara baazigan qaala haza rabbi falamma afala qaala la in lam yahdini rabbi la akuunanna min alqawmi addaaliin falamma ra'a alshamsa baazigatan qaala haadaa rabbi haadaa akbar falammaa afalat qaala yaa qawmi innii barii'un mimmaa tushrikuun innii wajjahtu wajhiya lillazii fatara as-samaawaati wal arda haniifan wamaa ana mina al-mushrikiin kon Ibrahim mësta umpale ci wàllu boroomam mësu caa sikki sakaaka jeexi jaaxa waaye fekk aw nitam ca la ñuy jaamu mu jëmale ca xalaatam yàlla dolli ko ca ak waar mu waxante ca ak ñoom ba yey leen xamal leen ne leen yooyu yëpp kat dara du ci yàlla nan bokk jaamu yàlla mais loolu ak cër la bu ko yàlla may ci wàllu xalaat ak jonganteeg ay nitam ci gannaaw ba ko yàlla cëralee nag mu di yoonante mësta ëmpale boroomam benn yoon maanaam wenn waxtu rek nga toog di xalaat xalaat bu sell mën nga ca amee ci yaqin ci sa diine sa diggante ak sa borom loo xam ne boo doon jaamu sa jamono jëpp jëpp te boolewoo ci xalaat boobu du tax nga am ko ca xalaat boo ko taxawoo mbir yi day leer fi yow naññ te bu mbir mi leeree fi yow rek la disoon ci yow ci diine day weef ci yow toy noonu la ko gëstu ko buré boobu waxee ibnu Saïd ak daymaan yi ni am na keneen kuñ laajoon ne ko waaw noo xamee sa boroom maanaam noo xamee ne yàlla am na mu ne dama seetu ne danaay dogu ci mbir dogu goo xam ne desul dara dara dara jekki-jekki am lu ma ca génne ma xam ne la defoon dogu googu ci man muy bëtiku génnewaat ko ci man yàlla maanaam am na borom kàttan goo xam ne mooy soppandiku ci man rek nde du saa bopp yi ñu mën a xalaat dafa bari ndax mbindaafu ni yàlla yi lu ci ne rek la ci nekk ci kéemtaan ñu mën a xalaat du jeex mu ne nag na addis ba waxee daal lépp lu jaam bi xalaat bëgg caa doole ko waaroo ko gëm asamaan ak suuf moo ci jiitu boo weesoo nag xalaat ci asamaan ak suuf xalaat ci xéewal yàlla yi muy xéewal jaamam ñi rawante yooyu sa jëmmi bopp lam lay xéewal xalaat googu moo ci war a topp ndax day tax nga gën a bëgg yàlla ndax boo seetloo lim la xéewal rek da nga koy daal di gën a bëgg ñeneen ñi gëm yàlla buñ dee xalaat tuyaaba ji nga xam ne moom la yàlla fayee ñu gëm tey topp boo ëllëgee day tax rek ñu gën a xemeem topp yàlla gën caa farlu te nag lu la xemeem loo topp yàlla farlu ci rek am na ci yow solo ba tey nee na kuy xalaat mbugal metti mi yàlla mbugal ñeweddi woon ak ñamoyoon kuy seet mbugal gu metti gam leen di mbugal ci sawara bu ëllëgee ku koy xalaat daal di ko xalaat di ko xalaat rek dana tax nga jàjj lool dana tax nga ragal lool tiit ba sori mooy yàlla yi xam nga luy tax a sori mooy yàlla rek xéewal la te nag di xalaat mbugal gu metti googee dana tax a ragal yàlla ba sori ak mooy nee na buñ dee xalaat nit ñu yàlla suturaale fii ci àdduna nga xam ne kenn ku ne xam nga ci sa bopp daanaka loo xam ne bu ko nit ñi xamoon di la daw te yàlla suturaal la ba kenn xamu ko neen loolu kuy xalaat rek dana tax nga rus yàlla ndax ne nga mënoon naa feeñal lii te feeñalu ko rek dana tax nga gën ko rus bay moytu bu baax a baax waaye itam dana tax nga dolli ko yaakaar ci moom aw yoom ak ndimbalam ndax ku la mën a gàcceel nii te defu ko rek mën ngaa jàpp ne kon ak mbaaxam la te mbaaxam googu ni mu la sudaale tey jii bu ëllëgee it noonu la lay sudaale mën ngaa jàpp ne kon ni mu la suturaale tey jii itam bu ëllëgee rek noonu la lay suturaale yéen gannaaw boo xamloo say farata ak say sunna ndax loolu mënta ñàkk da ngay jëmale say xalaat ci li yàlla sàkk li yàlla sàkk daal lu ci ne lëm ca lëm ci ay yi waaree ka tolli gëm yàlla rek xam nu mu toll kon bari jëmmi sunu borom ci boppam moom ëpp naa jëmale xalaat ndax jëm yàlla ci boppam xalaat mënu koo takk ka root moom kay na xalaatam jëm ci rek li yàlla sàkk ndax wa fi kulli shay'in lahu aayatun tadullu tadullu ala annahu alwaaxidu leen lu ne boo ko xalaatee gis ci yàlla xam ne yàlla rek ay buur kon day xalaat ci li ko yàlla digal nu mu koy defee ba mu baax di xalaat ci li ko yàlla aaye na mu koy moytoo di xalaat ci xéewali yàlla yi ndax mu dolli koo sant di xalaat na muy def ba mucc ci àdduna ak saytaane ak bànneexu boppam ak bakkanu boppam su ko defee loolu ko loolu bu ko defee da ci amee ak sell ak dëgëru gëm nin ko waxee woon léegi nee na bu fekkee yàlla dafa laa nattoo ak ñàkk nag bul di xalaat ñàkk kim la teg ndax boo ko def bul jëmale sa xalaat ci ñàkk ki la yàlla teg ak na mettee ak di xool ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu bari le loolu boo ko defee sax day gën a naqari nga dem bay xarab yàlla da ngay xool rek nga xam ne yaa ko tane ndax li ngay ñàkk-ñàkk boo xoolee ci sa wet gis koo xam ne lam am xëy na du jeex waaye wéradi ga ko yàlla teg te yow tegu la ko wéradi ga tax na bu sañoon joxe lam am lépp lépp lépp te am wér ak jàmm boo seetee loolu rek dellu santaat yàlla bu la nit tooñee itam tooñ gu metti bul nekk di ko xalaat ndax boo dee xalaat lim na tooñee day tax nga gën koo soxore gën koo mere soxor gën a tàng ci moom fekkee mënoo ko baal ngir yàlla daal muñal rek te bàyyi ko yàlla nii itam bul di xalaat ne man kuy gudd fan lay doon ndax boo dee xalaat na nga fi yàgg lu amutoon dana ñëw day waral yaar day taxa bari bàkkaar taxa néew yi topp yàlla ndax loo bëgg def ci lu baax ne naa xaar ba nangam bu nàngami ma def ko ndax yaa ngi yaakaar fan wu gudd bàkkaar yi daan ko doo ko moytu ndax da ngay wax ne rek danaa ko mën a tuub bala maa faatu moo tax xalaat fan wu gudd moom ak loo amutoon mi ngi ñëw day waral rek ñëwuk topp yàlla ak bari ay bàkkaar mais nag xamal ne dëddu àdduna ak ak sàmm ak mboolem yu baax yi yaa ngi koy amee ci dina mi ko sa xol lu ci ne toq ci du aw yiw rek nga gaaw dàq ko ndax boo gaawut a dàq day toog daal dëkk benn yoon kon nag sooy boo farlu ci lépp lu toq ci sam xel lu nuru xeetu bidaa mbaalu aay rek mbaalu amul njariñ rek nga fexe ba dàq ko mu génn fi saasa te jëmale sa xol ci lu baax loolu daal ci la ñuy amee ak dëddu ci la ñuy amee ak sàmm ci la ñuy amee leeru xol ci la ñuy amee wépp yiw jihaad yi nga xam ne moo gën ci mboolem xeeti jihaad yi mooy di jéem a téye sa xalaat mu bañ a jëm ci lu amul njariñ fu mu toll rek di xalaat lu lay amal njariñ loolu daal moom jihaad la boo xam ne bu metti la waaye moo gën ci mbooleem xeeti jihaad yi kon del seet sam xel la cay toq bu dee aw yiw bu ñuy jëfee nga gaaw jëfe ko bu dee safaan ba nga gaaw dàq ko te tuub te wóor la ne moom lu baax lu ne ñu ngi koy amee ci téye sa xol bañ caa xalaat dara lu aay di dox ci am xelam moom ci lu aay te waxiwu ko jëfiwu ko neexu ko itam ci xolam moom kenn du ko ca bindal dara bu dee xalaat lu aay nag ba dogu ci faaw daa koy def bañu war ko caa bindal bàkkaar mu wëlbati ko nag rëccu tuub daal di koy bàyyi bañ koo def kon dañ koy jégal bindal ko tuyaaba yi bàyyi gam bàyyi lu bon loolee waaye nag bu fekkee loolee mu dogu woon te muy lu aay noonu la ca dogoo woon dogal bi ci bopp rek moo ko forut ba loola amut kooku moom du tee ñu bindal ko ko rek bàkkaar fexe ba lépp looy xalaat ci sam xel rek muy luy am njariñ fii ci àdduna ba fële ci àllaaxira sax ci loolu rek di ca góorgóorlu mooy jihaad ji gën ci mboolem xeeti jihaad yi nee bu ñu nee fexe ba sa xalaat bañ a jëm ci lu amul njariñ moo gën ci xeeti jihaad yi ne say boo teg ci ne ba tey nag moo gën a metti ci xeeti jihaad yi te it bu fekkee doo ko jéem ca ba nga tàmbalee guta julli ba tey boo nekkee ci biir julli ga doo ko man mooy faaw rek faw rek war nga di ko jéem bala ngaa dugg ci biiru julli mooy tax boo duggee ci julli gi man ko waaye ndegam doo ko jéem ca ba nga tàmbaleegul julli bu àggee julli ga bëgg koo def itam doo ko man balaa tuddal yu bare bari yoo xam ne mënees na caa jëmale sa xalaat xa tudd na asamaan ak suuf tudd na jant ak weer ak biddiw yi tudd na garab yi ak ndox ak sawara ak doj yi ba tuddaali sax guddeeg bëccëg mu ne ak yu bokkut ak ñoom lépp lu yàlla sàkk rek boo ci xalaatee gis ci yàlla yokku cëg wéetal yàlla yokku cëg gëm yokku cëg leer moo tax mu nekkoon na ngay saxal say xalaat ci yi mu tudd nii ak yépp yu demee ne ñoom